valider Abdou Diouf valider Ablaye valider Macky comme conseil constitutionnel li mu wax itam comme je le conseil constitutionnel date la a c'est a respecté chef d'état bi respecté le conseil constitutionnel mais conseil constitutionnel li mu wax appliquer le 31 bi. Ah, ñun koy lu ñu bëgg mooy na élection am comme fexe nañ ba pousse élection yi ba ñu toll fii bu ñu élection yi dina am marché bu mu weesu marché rek ñun daal li ñu gënal mooy balaa avril ñu def élection président bu bees ñëw suñu président bi abal ñu quoi ñun loolu lañ bëgg. li ma ci mën a wax mooy comme citoyen comme comme man quoi en tant que euh, citoyen comme man bon date bi moom pour man ñu jël euh, date conseil constitutionnel bi daal moo gën quoi. waaw boo gisee parce que dëkk bi bëri na ay yëngu-yëngu yoo xamante ne ni xam nga ay wii ou non yooyu ñoo ko fi andi te xam nga ñun jeunesse bi bon soxla nañ ku ñu dimbali ci yenn yi daal te bu ñu sañoon tamit xam nga ñu jàpp ko ci date bi nga xamante ne moom la sénégalais gën a bëgg loolu daal pour man dina tax Sénégal gën a mën a jëm kanam ko waaw pour man euh, sénégalais yi léegi amatuñu lu ñu wax ndax problème date moo nekkoon sunu sunu sunu yitte ñun ñëpp. donte Macky Sall bu ne suwa sa gaay acca la waron def sans campagne loolu la japp loolu la gëm ndax bu ñu di dof doflu ah Macky Sall day waat nguur gi rek wa kon bu nekké bëgg nañ Macky Sall dem 2 avril bi ñu eh, eh, date le 24 bu mu joxé baxna na pour man nak ku parewul rek moy naan nañu pousse élection yi wala Macky Sall bul dem dédé sénégalais doyal nañ sha allah liggéey na teg na ci yoon jox na ñepp respect comme sunu kilifa diine yi fii nii ñun ku leen warmaal rek ñun dañ lay warmaal ñun gis nañ Macky Sall nu mu taxawee diine gi fi Sénégal macha allah ñëpp gis nañ seen bopp ñëpp tamit gis nañ lu mu def si kër kilifa diine yi. diggante démb ak tey maa ngi dégg jeunesse dinaa Macky Sall sañ na repousse élection yi à cause de conseil constitutionnel lu mu annoncé nii démb. mais conseil conseil constitutionnel bu waxee ba pare dañoo war respecté li mu wax ndax ñun la fi nekkal ñun ñëpp. bu fekk bu waxee ne date bi la ñu bëgg a def élection yi population bi ànd si président Macky Sall da si war a ànd moom fi mu ne nii bu ñu waxantee dëgg dogalam bëreetul ci réew mi comme ne nañ élection yi dañ koo bëgg a def mois de mars dañ ko def mois de mars moom avril mu jaaxal fi dem yoonam ñu am président bu bees ñun ñaan yàlla tamit président bi ñëw nekk président boo xam ne bu ñuy jig lay doon waaw amul ñu njëriñ amal njëriñ réew mi ak waa bitim réew yëpp. bëgg ndax bëgg nañ changement ci suñu réew mi quoi bëgg nañ bi changement réew bi métti na xam nga euh, jeunesse bi ñu ngi ci chômage boo xam ne muy góor ñi ak jigéen ñi métti na daal bu ñu sañoon daal ñu changé ko ñëpp gis seen bopp si réew mi waaw. comme loolu moom yàgg na fi comme li ma léegi rek la répétition est pédagogique. maam ñi fi ñi fi nekk njëkk a doon chef d'état conseil constitutionnel mooy mooy finalisé. kon li conseil constitutionnel date bi conseil constitutionnel wax lañ population a la population bi dañoo ji veut bëgg jeunesse bi bëgg nañ bëgg nañ découvrir lu dañuy Macky Sall rek ah la population Sénégal bi yëpp rek ñu ci li conseil constitutionnel wax a ba élection élection a rek la élection ñun ñi nga xaaye dund nañ romb nañ 40 ans fekke Abdou Diouf ba léegi lu mu mënti doon lu ne jàmm mooy mujj kon nag dañuy ñaan yàlla rek kii président bu bees bi ñëw mu doon njariñal Sénégal te jeunesse bi delloo si xeli mag ñi tamit gunge jeunesse bi ñuy wax jàmm di xalaat jàmm kenn ku ne yaa ngi daan lekk ka te am na ñoo xaaye mosuñoo nuyu benn chef d'état dëgg neex yàlla. waaw ndax xam boo gisee boobu léegi nit ñi ñu ngi ci ay fitna. ñu ngi ci ay fitna yu metti te dara waralu ko loolu lii ak laa wii wala non loolu moo waral fitna yu bare te jeunes yu bare ñu ngi perte seen temps ñii ñu ngi ñàkk seen liggéey te xam nga kenn xamul daal waaye bu ñu sañoon daal xam nga ñu xool dëkk bi nga xamante ni moo ci gën a baax pour ñu def ko ñu doxalee ko noonu parce que jeunes pour man dëkk ay xale ñoo koy doxal mag ñi nag pour man ñoom xam nga dañoo topp suñu ginnaaw rek du ñu dunge te ñun ay xale lañ yoo xamante ne nii tey xam ñu nekk suñu ginaaw dafa bari lu ñu yaakaar dafa bari ba tax na bu ñu soñoon ñu topp li nga xamante ne moom la nit ñi bëgg ñu def ko loolu daal pour man moom dina jëmale réew mi kanam quoi. dëkk bi fépp fu amul woon courant fexe na ba courant fa yegg euh, yegg na fa man mi nga xam ne su ma la waxee suñu dëkk nu mu soree nu mu soree ak ndox ak courant te macha allah ta euh, euh, kii bi yegg na fa nu ñu ko watee ndox mi ñëw na fa. te on bientôt incha allah courant bi dina fa yegg waaw parce que defar nañ fa benn kii tamit bu rëy benn panneau solaire bi nga xam ne dina mën a satisfaire dëkk bi yëpp waaw te léegi macha allah daal Macky Sall daal fexe na ba fu amul woon ndox mu am ndox fexe na fu amul woon courant mu am courant euh, dëkk bi tabax ay hôpital defar na BRT TER aéroport defar na stade euh, bëre basket football macha allah daal Macky Sall daal wax dëgg yàlla. Eh, ñu ngi xaar daal eh, ñi fi jot a jaar ñett lañ ñeent lañ ñett ñi Macky Sall doublé wu leen da leen triplé waaye yàlla def na nag Macky Sall moom fu mu nekk nii bu triplé na ñëwee ñu ngi xool nag kuy doublé Macky Sall wala mu triplé ko waaye gëm naa ne moom du yomb. xam nga mbir bu amee moom commentaire yi dafay bari waaye man moom damay wax ci cadre ñaan rek nanu ñaan conseil constitutionnel li mu tëral. ndax ñoom ay mag yàllam jëmm lañ ay kilifa lañ te juróomi lu ëpp lu weesu juróomi nit wax ba finaliser ñoom kon nan damay ñaan rek man damay damay ñaan en tant que citoyen sénégalais damay ñaan gouvernement bi déggal waa conseil constitutionnel ñu ñu fixé ko au 31 loolu rek la bu ko defee ñu wote ji ku ne dellu ci sa yitte liggéey kenn ku ne lii sa wërsëg bu soobee yàlla moom comme que yaa ngi dund ci kaw àdduna ci suuf si yàlla dina la ko jox commentaires day bari nak lu am rek commentaires yi fay bari quoi kenn ku ne ak li nga ko analyser waye man damay ñaan gouvernement bi kiko ko moy chef d'état bi ak population Sénégal bi ak conseil ñu bayil conseil constitutionnel nangul ko date bobu mu jël ñu teug élection le 31 nit ñi dem voter ci jamm ndax weeru koor la weer la gan go xaye dañ ko wara respecter muy weeru koor gan la bo xamantene 30 jours la yom nañu muñal gaay dem élection daar daar ñu dem élection le 31 ñu wote ji que le meilleur gagne loolu rek la ñu ñëpp ay citoyens sénégalais lañ man dana noonu laa ko gisee. waaw parce que loolu yëpp boo ko gisee mooy werante rek mooy bu jàppee ñuy jàpp bu yàggee daal day nekk loo xamante ne nii xam nga kenn du xam ban rek ngay féete Macky Sall xëy na li mu waroon na def yëpp xëy na def na ko mais nguuru kenn du ko ñidd daal. si gis-gis mooy defar na lu rafet ba ñëpp teg si seen bët dañ koy ñaanal rek mu dem ci dem bu rafet waaw. affaire candidat la moom ñu bëgg a bokk ci élection yi nañu bàyyi ñëpp Karim Wade Sénégalais la comme Ousmane Sonko bu ñëwee pour bëgg a posé pour jël réew mi nañ leen nangul ñoom ñaar ñëpp que le meilleur loolu laa gis. ay Karim nekk fii ay mu ngi fële mu ngi fële loolu yëpp man deuxième laa ko def ñoom ñëpp ay Sénégal lañ te am nañu yaakaar ne ku ci yër réew mi yaakaar naa dina ci def li mu kon nañ leen yemale ñoom ñëpp daal. y a des personnes qui disent que ni euh, Karim Wade moom xamul xamul dara si dëkk bi moom lijjantiwul sax si dëkk faalewul. non extérieur la gën a kiiwee daal. non non non loolu amul dafa nekk foofu rek dangay gis ku nekk extérieur di doxal Sénégal loo xam ne ku nekk Sénégal du ko doxal loolu amul problème waaw bu nekkee président force day ñëw ndax dina dina def li mu war def si réew mi yaakaar naa man daal gisewu ma foofu daal wax dëgg fa yàlla. ndaxte ah, aussi tamit papaam gis nga li mu dox def ci réew mi te kilifa la ci réew mi tamit am na lu bëri loo xam ne daal lu nekk si papa day nekk si doom man foofu laa gise waaw. parce que réew moom kenn mun na ko développé si benn un an wala deux ans wala trois ans ay ati at at comme douze ans yi fi Macky Sall def réagir na si dara macha allah dëkk bi keroog dama doon dem fii nii euh, Tëngéej dem Dalifor Dalifor laa jëlee terre bi dem Tëngéej bu may ñëw ma jaare Kër Massar jëlaal BRT bi ma xam ne Macky Sall daal. macha allah liggéey na dëkk bi macha allah. conseil constitutionnel fi lañ ko fekk ñoom ñooy finaliser ay magistrat lañ ñoom ñooy finaliser léegi kon nanu tënku ci ñu lu ñu wax rek ñaan ko Macky Sall ñaan ko membre gouvernement bi yëpp ñu ànd conseil constitutionnel li mu wax rek le 31 ñu woote ji. ku nekk xam nga dëgg te ku nekk xam nga euh, li jaadu ñun ñëpp ay citoyen lañ dañuy dund politique dañ koy waxtaane te dañ koy suivre tamit. waaw ñun ñaan yàlla nu mu mënti demee daal na si jàmm daal kii ñëw nekk suñu njiglaay nekk koo xam ne li ñu bëgg mu changé ko yëpp même bu changé wul yëpp sax xaaj bi yëpp dinañu ko mën a changé waaw. léegi euh, conséquence na bi du ko si bàyyi parce que euh, damay dégg ñu naan bépp njiitum réew luñ la appal amoo benn sañ-sañ teg si lu tal ni tarafatal ay ni waa donte nag euh, temps yële ne le 25 février bi la ñu waroon def. Macky la xool dëkk bi nu euh, ñu posé candidat ñu jàll ak ñu jàllool xam naa dafa bëggoon yërëmoon Karim Wade rek pour mu bokk te kooku conseil constitutionnel bi kale nañ ko xam naa nag mu bëgg mu ñu bokk mu bëgg nag pousse affaire yi pour Karim Wade ñu delloo ko si biir liste bi. waaw pour man nag Macky Sall warul xool loolu warul jël benn sénégalais wala quelques personnes rek wala ay deux cent mille personnes wala benn cinq cent mille personnes di sacrifier ay millions sénégalais ndax euh, ñi bëggoon dem élection. seen yaram tangon tangon tangon bo xamne election rek la ñuy gis ba ci sénégalais yi dañu japon le 25 février ñepp dañuy dem dugg ci biir yi voter ku mën sa morom duma ndax réew mi fu mu toll ni 19 ñi dem mën naa wax dinañ fi dundaat benn 40 ans wala 60 ans dootul am lu mel nii waaw parce que fii nii mun naa wax 19 personnes yi kenn tanewul sa morom ñoom ñëpp ñoo yem Macky Sall bokkul Ousmane Sonko bokkul ñu si des nag ñëpp instant yi nii Idrissa Seck weddi nañ ko Khalifa Sall gars yi wóoluwuñ ko bu baax kon mun naa Anta Babacar Ngom ak Bassirou Diomaye Faye ak Idrissa Seck ak Khalifa Sall ak ñeneen ñu ma tudd ak ñu ma tuddul ñoom ñëpp cinquante cinquante réew mi fu mu toll nii si sarxa la toll kenn ku nekk mun na kaa jël waaw. problème ci sa biir néegu sëy xam euh, kattan bu néew la wala manqué man yu euh, sax jafe euh, gaaw a daanu. seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.